cant ak ngërmande ñeenu leen ñu jaajëfal leen bu baax a baax dalal leen fii ci biir kër gi jamono TV eh, ñu jukki bopp xibaar yi nga xam ne xëy na fi fas dara ñëw eh, ci biir xibaar yi foofee ci diwaanu KMC eh, mani ne ndikkilu tey waa ji di uti Seynabou Martin Sonko moom nag delloo xam ne ca barab ba di fa wet ab ñaqam gina nag ci ay diir yoo xam ne taalibe Ahmed Bensouda mu ngi ko tongoon ne daal Seynabou Martin mu ne ak keneen koo xamante ne dafa liggéey moom duñ fa wetti seen ñàq ni ki déglu eh, ci la bataaxal tukkee ko ci nguur gi dégg ne moom Sainabou Maty Millé dina fa dellu ndikee ni tey di fa wetti ab ñaqam xibaar ba ñu mel eh, fas na ci kayit yëglekaay bu niis gisee eh, des nañ ko yaatal dina ñëw ci biir xibaar yi ab bataaxal boo xam ne tukkee na ci ministry of justice mooy juróom bi dénk mooy saytu ci lépp loo xam ne dafa aju mu ñeel pandaat mbirum atte yëkkati ko Ousseynou Dabo moom mi jàpp ne sax commission bi nga xam ne njiit réew mi euh, président Adama Barrow daf ko taxawal euh, moom dafa singli euh, bi political parti bi United Democratic Party tey jii Daouda Diallo mi nga xam ne moo doon jëwriñ bi ndékk muy seetu wàllum mbiram nag luwaayu réew mi tontu Ousseynou Dabo ci ab bataaxal xibaar bi ni mel fës na bu ñu si gisee des dañ ko yaatal dina ñëw ci biir xibaar yi niki ni tey jii ab tàkk-tàkk boo xam ne dañ ko nemmeeku foofu ci diwaaru Nasir Foom man manufacture yi ab compagnie la bu nekk ci réew mi di ci fànnab wàll may liggéeyu mbal ab tàkk-tàkk boo xam ne daal niki ni tey jii de nemmeeku leen ko fa xibaar bi mel bu ñu si gisee ko yaatal mbokk yi ñu la ak yeneen xibaar bu ko defee yéen ngeen teewlu taxalu su bakk bi daanoo ñu benn benn xibaar weeru jamono eh, bàkk ba jub na ci jamono TV te nagu ñaar fukki fan ak benn eh, ci weerum février wi ñu ne atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett xibaar yi eh, na ma ko jukkoon ci ngir bi noonu lañ ko tàmbalee ñu ne nag ndiki démb ab bataaxal boo xam ne tukki ko na ci bi Ministry of Lands Regional Government and Religious Affairs moom mooy jëwriñ bi nga xam ne ñoom dénk day seet wàllum suuf ak wàllum buuri eh, ndaw ndawaan nekk ci mën de ñoom ñooñee eh, ndikk dem nag leen biral ab bataaxal ne daal waa ji eh, soxna si la di ëyoo ci seen bu Martin Sonko mi nga xam ne moo doon Euh, CEO bu euh, Kanifing euh, municipal council dafa delloo pour wet fa ab ñaxam gina nag ay diir yoo xam ne moom nag Seynabou Martine Sonko mile soxna si la nag Talib Ahmed Bensouda mu ngi ko suspendoon maanaam daal daf ko tondoon ci boobule barabu liggéey kaay ngir ne daal dafa am yenn ci ay lubali koppar yoo xam ne Eh, def ko def ca barab bi di QMC lu ñu mel nag eh, taxoon na eh, moom nag Seynabou Matim Sonko toog na ay diir yoo xam ne tegul tànkam foofu ca jundub KMC ndiki dëmb bataaxal bi nga xam ne tukki ko nag ci joorin bi dénk mooy seetu nguuru ndaw yi nekk ci lënd moo wax Seynabou Matim Sonko ne de ndiki ni tey jii naka dem wett fa ab ñaqam gën a nag ñooñu dem biral ne taalibe am na dem suura nag moom dafa salfaañe lu ko luwaay di mi dégleel war a nag fi nga xam ne fa la war a yem euh, waxta am benn sañ-sañ pour nag euh, wax doomu aadama ne ko euh, barab bi daal dafa wetti sa ab ñaq yéen a nag ni kenn tey jëlee jàppale ne Sainabou Martin Sonko demoon na ci barabu liggéeykaay ba sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne tey jot nañ ko tatam Sainabou Martin Sonko mu liggéey sax moom am nag jono ba taskatu xibaar yi jono bi nga xam ne am na ko jono ba taskatu xibaar yi moom na dafa dëggal ne na ko nguur gi ñoom la ñoo ko wax mu tana go lolu e lukkinite yinage defna ko manina sembu matin bam don delu ca baraba amul ben eh, ko xamne do na borona mal tank ci ngoru ko ko gumbe man ne kam andal eh, moy ki nga xamne ñom ñaan ñeñe len tumal dal den par ko eh, fe ci diwanu fi municipal kan-, sul wëru tumal nak mom lañ jël dal ko dal seen ndabu japp na sax mom sembu matin sonko melé e lukkinite yinage bello xamna ca baraba dina nak ndiki dundu sax man ne abdo cho naan jur eh, ba noppi ci rini loolu moom doon nuyu bu kenn si talat Ahmed Bensouda eh, moom sax génnoon na ab bataaxal eh, di sàkku ci képp koo xam daal doon nga farandooram pour nag bul yëkkati ci ab coow foofu ci diwaanu KMC moom sa talat Ahmed Bensouda dafa gërëm ne daal moom ba bañul kenn koo xam ne daal war na war naa dugg ci diwaanu KMC lii bañalul ko kenn waaye nag war am na sañ-sañ pour wax ne man du ma liggéey kii loolu dëgg na daal am na ci sañ waaye waxu kenn Euh, bul dugg foofu ci diwaanu KMC yële kàddu taalib moom mu ngi koy daxalu ci nag ñenn ñoo xam ne ñu ngi koy jël di ko gàlloo ci ndëndam naka noonu taalib ànd ak benn suuda moom mooy mooy yóbbu KMC leneen li nga xamante eh, bu a dellu eh, ca kenn koo xam ne daal seen bu Maty moomu eh, dafa dugg lu ñu mel na dàqalu na ko ndikki dund ci ab audio boo xam ne daal fasal na ko moom it sax dafa jàpp ne sax bu nekkee ne yow am nga yaakaar am nga yaqin daal sànnikat yi nga xam ne moom la dañuy war a dëgmal ndikkin wérum mi war a yemoog ñaar fukki ni fan atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett dañ ci am bu jarul loolu jarul ko ci mbir mi daal nañ ko def ci yoon nañ ko jaarale ci na ko sax ak loi tërëlee ak loo xam ne dañ koy def ci réew daal na gis ni jàmm ak dalak réew mi dina gën a continuer di wéy tàllab Ahmed Bensouda leneen loo xamante ne ñu ko nangoo ci ay kàddu Eh, càmp bi boo xam daal fësal na ko ci bundu xarala yi moom ne eh, bu dee la daal wàllum fitna moom eh, doxut ca dara lépp loo xam daal dafa ñeel di yee fitna di tiital doomu adama yi li ñu mel nag moom doxut ca des nag jàmm ak dal moo ko tax a jóg te nag loolu saa su ne ci laay dox buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne daal moom ne bu si dal dina ko fësal ndiki dimbu ci ab bataaxal boo xam ne génne na ko nag di dalal xeli farandooram yi ne daal nag buñ tiit ragal te buñ masa yee lépp loo xam ne dafa ñeel maanaam boobu fitna fitna loolu taalib bi moom nag daf ko dàqalu ginnaaw nag dafa jàpp ne sax nañ xool bu baax a baax eh, ci nag eh, indépendance bi nga xam ne moom la bàyyi koon du yàggu dara ndiki ni bërki bu eh, bañ doon màggal suñu maam yi nga xam ne amoon leen taxawaay ba am solo ci moom réew gis ne bi mu dugg na ci benn hôtel Talib sàkku na ci forondooram yi pour ñu xool ñooñu bañ indi lépp loo xam ne dafa ñeen ci findat bi ngir ki ak i ngaayoog fantasiro ci géwél politique gi wala kaddu ñu ngi ko ci moom bu kéem si di Talib Ahmed Ben Souda mi ci dëmb ci la biral yoolee kaddu yéen nag buñ dégg ne seen bu matin dafay ñëwaat ci barabu liggéeykaay bi moom nag ci la soññi waa forondooram pour nag na bu ko kenn ay mu dugg ca baraba waaye moom Talib dëggal ne ne am na sañ-sañ Eh, pour wax ne daal eh, moom bëggut ak liggéey ak eh, soxna Soole buñ ko ca la yéenekaay lañ xëyee loolu tamit bokk na ci loo xam ne te jii fasoon na ci xibaar ci fannaat bi réew mi ñu wéy ci biir xibaar yi seetaan leneen loo xam ne yéenekaay yi xëyaa nañ koo tataan ab bataaxal boo xam ne tukki ko na ci buntu joorun buñ dénk mooy seetu ci lépp loo xam ne dafa aju mu ñaan nag fannaat wàllu mbirum atte ministry of justice nasaraan noonu la koy ooyee Daouda Diallo moom lañ ko dénk mooy seetu woowule wàll Eh, moom ay sax mujj naa tontu njiitalu United Democratic Party Ousseynou Babo eh, moom nag njiitalu UDP dafa yëkkati ay kaddu jàpp ne sax eh, moom président Adama Barrow commission bi nga xam ne fas yéene yéene pour taxawal ko dafa singuli United Democratic Party a daal ay pexe moom la njiiti mi nekk di nas pour nag fànq wala faagagal ñi nga xam daal ñoo doon councillors yi ak di nuyu kii nga xam ne. ñoo nek ci nguru ndaw yi nek fi ci rew ma gànd waaye nag Daouda Diallo mujj naa tontu ousenu Dabo ba taxal bi nga xam ne fësal na ko dafa dëggal ne section two xone ci kon ci constitution bi manam dal patchat ñaari e ci baatire mi nga xamne mo teunk tënk képp koo xam yow mi doomu juddu rew mi nga e eh, moo doole njiit gitu réew mi president Adama boro pour nak commission mu waris ko wara mëna mën a tabb lu ñu mel eh, baatire mi dal moko dolel president Adama boro pour amna na sañ-sañ ngir eh, nak tabb ab commission gën nak mu ngay dàqal ni eh, kàddu nga xam ne daal njiitalu United Democratic Party Ousainou Darboe eh, daf ko biir eh, njiit mi di président Adama Barrow boo gisee li tax mu toog ba jamono jëlee fu ñu nekk nii ci waxtu bi la pour nag muy fas yéene tabb ab commission dafa ko lu dara pour nag politique moo laqos ca mbir ma politique ga ca lalu li ñu mel nag moom Daouda Diallo wéet na ko gi a nag moom Daouda Diallo dafa biral ne commission bi nag duhut ne dafay simbali rek UDP waaye demewul noonu bu bi commission dina càmbar bépp bépp koppar boo xam ne moo xam council boo xam ne NPP ñoo ngeen moon waaja mu ne fa wala UDP loolu eh, du jubluwaay commission bi commission bi li jubluwaayam pour nag daf taxaw sellu daf càmbar eh, mu ñaan nag fànnaat ba koppar yi nga xam ne nguuri ndaw yi nekk ci numéro eh, dañ koy jëfandikoo yoolee kaddu ñu ngi ko nangoo ci daaw da jàlla mi nga xam ne tey tontu na Ousseynou Dabo mi nga xam ne dafa jàpp ne commission bi nga xam ne njiit réew mi di président Adam Barrow daf ko tabb mu ñeel eh, nguuru ndaw ndawaan yi nekkee fii ci mooy local government council moom la jàpp na sax eh, mbir mi dafa sibli United Democratic Party waaye Daouda Diallo dëggal na ne Ousainou Darboe nam gisee mbir mi ak mbir man demé dal lolu ut am na ab outé ba ca am lu muy e ci xibaar yi seetal loo xam ne yéen kaay xiyaa nañ ko tataan li ki ni tey jëlee e yi moog ñaar fukki ni fan ak benn ci weeru février wi ñu ne atum ñaar junni ak ñaar fukk ak ñett ab tak tak lañ mëna ko fofu e from man factory ab company la bu nek ci bori bentin bridge moy xalawa jëm ci bangul capital city bu gambia tak tak bo dal tay ji suba lañ ko fa nanako lañ fa jot dal bi la tàkk-tàkk lan moo ko wundu lan moo tax eh, bëbële compagnie mu di tàkk jëpp rek ndekki ni tey jii eh, loolu leeragul ci xibaar xam naa lu ñu mel des na ko gën a toppandi lépp loo xam ne tukkee na fa mu ngeen nag bi compagnie boo xam ne daa yëngatu ci wàllum defaru man la euh, tàkk tey foofee ca diwaanu euh, dencin euh, bëri lépp loo xam ne daal tukkee na fa bu toqe suñu nopp ndeeb soob na yàlla yaatal ak firim tàcce fii ci jamono TV mbokk yi lii leen fas yéene yëgee leen ko tey ci xibaar lii ma fa gënoon a rusee ci xibaar yi nga xam ne tey jot na fee rusee mu ñeel fan bi lëndu yàlla am na jàmm comme jàmm nga xam jàmm jàmm ji ñu xëyee yeneen te indi kii nii ëllëg jàmm lay doon jërë ngeen jëf for salaam yéen ak